di ñaanal sëriñ taxa Mbàkke mu yàgg fi lool jëma faal mu yàgg fi lool te di ñaanal sama sëriñ sëñ Fallu Fall mu sëñ Amdi Yaasin Fall mu yàgg fi lool te wér di ñaanal mbokki taalibe yépp ñu yàgg fi lool te maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm daanaka wax ji tey du mën a gudd xam naa day wax waxee sant rek la tënk euh, ginnaaw boobu nag ñu ñëw si fi nga xam ne tey daanaka sama carrière yëpp laa ko def muy njëkk yi loo gisee ñu jël bis bi di si rendre hommage loo gisee ñu jël bis bi di rendre hommage Baye Baba Dia biñ fiy nekk ñun ay xale lañ woon wante liñ naan xale du fàtte moo si nekk mboolem ku dëkk si koñ bi rek. amel nga ko njukkal ndax baay baaba ko baaxoon la woon kon nu ngoon a sonn si doomu aadama te damay faral di wax naan lool rekk a am solo nit du xaalis du dara wante yëg moo am solo si doomu aadama te baay baaba yëgoon nañu fi nekkoon ñëpp kon kooku tey duñ dee taxawal bis bi jar na kon ñu rendre ko ci hommage ci ko ci fàttaliku ndax royukaay la woon man de dëgg yàlla am na qualité yu bari yoo xam ne nii yoroon na ko te dama neexoon ma ko siy roy tey waaw du loolu jàllee maa ngi jéggul sax ci kàddu yi wante ginnaaw duñ jéggaloo bu baax a baax may nuyu sama waajur bu góor muy Alaaji Balaaj di ko ñaanal lool mu yàgg fi lool te ndax damay faral di wax naan xale moom xale rek la wante lu nekk si man rek giñ naan seerafaal moo ko def si man lu nit di xool si man ba koy naw wala bu koy tagg moom jëmm jooju moo ko def si man di ñaanal sama waajuru jigéen nag moom yàqu si dara ndax lépp mooma man mënuma dara li may faral di wax rek lépp lu ma am rek ginnaaw yàlla moom la kon mënuma fay ma ñëwaat si koñ bi nga xam ne tey ñëpp dañ ma bëgg daanaka aw fi mu noonu ndax képp koo xam ne maa ngi dajeeg yow seq nga man relation yoo xam ne nii wax dëgg yàlla dama naan méritoo moo ko wante loolu lépp dama leen di sant bu baax di leen gërëm yéen xam ne ànd bi ñu ànd yàlla na yàgg ak jàmm te moom soo wax dëgg yàlla ma leen di siyaar maa ngi nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne tey su ma sëriñ ñoom la fi yebal muy sëriñ Ousmane Fall di rakkam di sëñ Jini Fall di sëñ Cheikh Fall. di sëñ Cheikhouna Fall di sëñ Amady Naway Fall di sëñ Cheikh Khady Fall maa ngi leen di siyaare bu baax a baax di rafetlu seen jataay bii ñu toog mu yàgg fi loolu te di ñaanal sëriñ Fallou Mbacke mu sëñ Mbacke soxna loolu nga xam ne tey ñoo dëkk fii mooy dëkk bi rafet trop di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ndax wax dëgg yàlla li naan wax sax mbaax wàññiwul sax mbaax waaye dara wax dëgg yàlla ko baax la di nuyu bàjjan ay regay bi nga xam ne ñoo bokk dëkk fii damay faral di wax naan politique ñi koy def man di si wuti noonu man xooluma foofu ndax li naan dëkkandoo bi ñu rafetee lépp lu koy yàq bu mu jóge si yow te man si loolu lay dox moo tax bàjjan ay maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di nuyu jigéen ñi nga xam ne nag ñoo topp sama ginnaaw di ànd ak man si liggéey bi du ma nee soxna Mbodja. ak soxna Ndawa ak soxna Mati daanaka tudd naa ñëpp di leen bu baax di wax ne jàpp gi ngeen jàpp jàppale maa ngi koy gis bu baax a baax maa ngi nuyu waa koñ bi yëpp yaa waati ma te Jóob wax dëgg yàlla liggéey bi saa bu jógee dañ siy jàpp baax a baax maa ngi nuy Nabou Jóob nga xam ne sama soxnaas mag la mi ngi dëkk ba olom wante lépp lu ma woote rek. dafay ñëw di fi jàpp kon dama koy sant bu baax di sant nag ñi nga xam ne tey ñoom laa ànd di liggéey ci góor ñi su ma tuddee xaali gay ndax li may faral sama grand la sama lépp la wante eh, dafa yombut ndax li may faral di wax mën na maa lépp daal li ñuy wax rek mën na moo ëppale wante bi damay diglu dama noon ne tey booy bii de xale rek la duma moroom duma ànd ak moom wante yooyu yëpp da ko jël teg fee di ma conseil di ma di xelal lu rafet loolu bis bi ñëwee tey du ma ko santu du ma gor Moussa la wax dëgg yàlla vraiment aw seen fay alaaj yi Yili Njaay seen liggéey daanaka tey jii événement jul ni mu toll nga dagg ko ngir sama jëmm ji rek loolu mënuma leen a fay li naan nag nit soo ko dee defal lu baax dina ko xam baadool la nag ngay defal lu bon lu baax mu naan dama ko mérito fekk nag baadool la wante li ngeen ma lebal de maa ngi ñaan yàlla su ma leen ko fay samay sett fay leen fant naa leen bu baax di ñëw si excellence Fata Diakhaté damay faral di wax naan parti bi di APR. ba ma siy dugg ba ma siy dugg 2008 laa si àndoon bi ab Abdoulaye Wade dàq président Macky Sall may ànd ak moom di xeex di ko jàppale. le président Macky Sall fal ma koy jàppale ba mu am premier mandat ba am deuxième mandat loolu lépp ñi xam xam nañ li ma ci daa daj di jël sama alal di ko ci def ginnaaw yàlla oto sa li bi wax dëgg la ndax jàpp naa bi si Macky Sall di ñëw fii sama oto moo fi daa daw ay oto si selo ak yeneen oto am na responsable politique yu bari yoo xam ni tey ñu ngi leen dooleel bi maa leen daa wàcc fu ñu jëm wante liñ nan nit mom liñ bind ci jëwam fek kii dina am lolou dama koy nangu wante excellence da Diakhaté yeketi auto sere kilomètre yëkkati jébbal ma ko loolu du ko mas fatte mukk ma dama koy sant di ko ndax dit lum la may ci alalam rek war nga ko mën bay fatte kon lolou nañ xamne yow Cheikh Fall yow mi yebal sant nako bu baax di ko di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu sama doomi baay yi nga xam ne tey ñoom laa dëkkal ñu rafetal trop duñ tuddee sa bopp ba ñaama aaj tudd nañ ñëpp ak ñam di yaasin mi nga xam ne moo taxawoon fii nga xam ne ñu bokk benn baay ak asan aaj mi nga xam ne sama doom baay la ak sëñ Fallou sëñ asan ak ñoom ñëpp maa ngi di siyaar wante li wax rek lii ñuy def nii ay ndog lañ daa def di ko dem si télé bi di ko joxe ba ma si demee ñi toog ñi wax si am di yaasin sëñ ay ndog lañ doon def wante damaa xalaatoon daal guddi maam Cheikh Guèye indi ko si ndog yi mu ne ma lool de am nga si ndigal ndax lu baax la ndax Cheikh képp ku jëriñu si yoonu suñ Tuubaa rek Cheikh Rafal tax loolu de am nga si ndigal yàlla baax na dina baax dina baax jooju nag loolu laa gëm ba tey jii ne xam ne baax na maa ngi sant waa baax bi yëpp. di sant sama nijaay yi nga xam ne ñoom sama yaay ay doomi baay te dañuy ñëw toog nii sama wet ñi dëkk olam nga dagg lañ doon def lépp ni sama jëmm yi aw ma seen fay man nag la ma leen waxoon rek man daal ab donga laa boo xam ne nii maa ngi seen ginnaaw yi leen diglu rek maa ngi jéggalu bu baax a baax nag si kàddu yi lu dëng si man la wante lu jub nga xam ne suñu borom la maa leen di sant maa ngi leen di suñu sàdd Modou Mbaye Ndiaye maa leen di seere bu baax nag. maam góor nag. wax ci moom yomb na waaye lu jafe la parce que nit ku baax la nit ñi nag kenn moomu leen nit ku ne nag kenn ku ne daa am looy àndeek nit ñii jikko la ñu àndeek nit ñii ngor la ñu àndeek nit ñii lépp mais Mame Goor boole mboolem jikko yu rafet yëpp nekk ci nekk ku neex a àndal nag vraiment waaw wax dëgg yàlla mën naa yëg boppam mën dara dafa wàcce boppam ba ànd ak ñëpp man mi keroog bi ma xewlee li bàyyi yi mu doon def yëpp ñëw loolu nag nekk lu rëy ci man moo tax tey ma ne lu mu xat-xat ak lu mu jafe-jafe dinaa bàyyi li mu def lépp ñëw teew ba bis bi jeex ma ñëw fi li ñu bëgg mënuñu ko am mukk tamit boolewuñu kon toujours li nga xamante ni ay message la toujours yoo xamante ni dafay wanewu mooy ñun ñëpp nañ toujours nañuy booloo parce que nag ñu bokk fi ñu jëm mën a ànd tey bu ñu juróom-ñaari nit jëm gaz daaru musi jëm jëm kajoor bu ñu àgg rek bu kii jëmee ndar kii jëm Dakar kii jëm feneen kenn ku ne da ngay xaar rek oto naa ni bokk guñ bokk lu ñu bëgg moo ñu war a boole ñun ñëpp ñu àndandoo toujours bu Adama xew xewleeg bu Mame Gor Aji xewleeg kenn ku ne ñu xam ne ñun ñëpp famille lañ instant bi politique bëreetuñ me dañoo bokk ndey bokk bàyyi. waaw tu d'abord dama may sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di ñaan yàlla aussi koor gi ñu nekk lépp luñ ci woor yàlla def ko tawfeex ci mboolem umma islamique bi yëpp rawatina fii ci Touba. Euh, tu d'abord dama fi ñëw ci ñaari mbir benn bi ci des mooy maam góor aaj en personne maam góor man na ma wax ne man moom ñoo bokk fu ñuy débuté ci politique.

ndax benn couleur la yor mooy président Macky Sall lay liggéeyal nekkoon na ci kër Cissé Lo ba mu dem ba mu yàgg am beneen vision wax na ma ko bi mu ñëwee suñu kër ñu waxtaan dama ne ko man de saa bu ma la gisee damay am mbégte ci yow ndax tey boo jóge woon foofa di wàcc wala nga jëm ci leneen bu boobaa dina ma naqari mais gëm naa ne la nga fa doon jàng mokk na te ku ne xam ne ne bersa langue bopp créer mouvement du jeunes yu bari ñoo ko ñeme. te moom bokk na ci jeunes yi njëkk taxaw Touba créer mouvement muy mouvement and dooleel Macky Sall pour l' émergence te boo ba léegi ku ne gis na ne taxawaay bi mu am ci biir askan wi li muy def ci social li muy def ci yëngu-yëngu yi tamit ku ne xam na ne des ci ginnaaw. asalaamaaleykum. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi ak sëñ Touba maam Got ñu bokk dëkk ci koñ bi bu ma nekk bu nekk xale ba nii mu def ma bàjjan ma def ko doom. mu doyloo ma loolu nag ci politique boo amee bis kon ne ma yow laa ko tuddee yoon def na man ma ñëw fi bu du woon nag politique bi sax diggante relation familiale yi nekk suñu digg diggante loolu laay loolu la ñuy gën a tissé moom la ñuy gën a dox que politique bi politique bi it yàqul dara suñu diggante nekk naa PDS moom mu nekk APR buy mobiliser fii à côté fi laa koy romb di ko tooñ di kaf ak moom di rey moom mais mosul tax mu am benn problème suñu diggante man nag moom. mu tuddee ma bis bi encore. te xam non ma kontaan ci lool nag. kontaan naa ci lool lool parce que man temps yëpp daw ma fenn sax. kooku am na fu la teg ki la tudde doom ak ki la tudde bis ñooyam rek parce que kii bu amee ay doom bu yàggee dina ma ko tuddee ndax ko bëggul doo ko tudde sa bis bis bi ak politiciens yi nekk Touba niñ toll tam leer ko ne peut-être mm, mm, am na ñoo xam ne ñoo ma ëpp ay am na ñu nekk en activité ak ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi ci yeneen mu bàyyi fi ñëpp ñëw tuddee ma ko loolu mun kenn mënu ko fay loolu dèjà loolu mënu ma ko fay kilifa alalam du ko boole kenn xale yi mu dëkkal ci koñ bi gis nga ni muy defante ak ñoom amul benn bis man dama ne sama waa kër lu maam góor xewle dem leen moom aussi noonu lay def di xale boo xam ne daal man dama koy ñaanal yàlla di ko ñaanal daal yàlla na gudd fan te wér te fekke lépp yaayam di ko soññ ci loolu bu yaayam waxee mu ne ko ay ragay sa bàjjan la keroog bi maam góor demee euh, APR papaam dafa ñëw ne ma man de ah PDS laa toog yow maam góor bu demee moom moo demal boppam waaye man PDS laa toog yow kon maam góor man yàgg nañ am ay relation yoo xam ne du lii moo tax politique duñ mës a boole.